ñaar téeméer yi Touba ca kanam di laaj weexu ne dafa jëm ci liggéey dëkk bu sell bi di Touba ci mbooleem infrastructure yoo xam ne dëkk bi da ko yittewoo laalewul dara ak commission sociale bu Touba ca kanam commission sociale bu Touba kanam ci njiital Serigne Mourtada Mbacke moom Serigne Abdoul Fattah commission la boo xam ne lépp lu ñuy jot ay jaayante lay doon yuy ko ci mbooleem jullit yi ñu koy delloo ci néew ju doole ji nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bu sell bi di Touba ci taxaw leen ci mbooleem loo xam ne dañ ko yittewoo ci seenug dund ak seenug nekkin ba ñu ko taxawalee ak léegi commission sociale bu Touba ca kanam jot nay liggéey liggéey yu am solo ci dëkk bi xool ay néew ju doole tabaxal leen kër yi nga xam ne moom lañ dëkkee woon tam jéggi woon dayo lool ci nekkin amoon it njaboot yoo xam ni dañoo amoon jafe-jafe ci wàllum ndox ñu xëccal leen ndox ba ci seen biir kër yi ba ci daara kaamil ji nga xam ne moo nekk ci biir jumaay Touba te ña fa nekk seen seenub liggéey di jàng alxuraanul karim bés bu yàlla sàkk bëri na loo xam ne commission sociale bu Touba ca kanam moo leen ko gàddul ci ay koppar ñi nga xam ne it dañoo nekk ci dëkk bi te am jafe-jafe ci wàllum ordonnance commission sociale bu Touba ca kanam dafa lëkkaloo ak pharmacie boo xam ni képp ku amee ordonnance ba mu gëstu ko mu leer dala yebal ci pharmacie boobule ñu jox la mboolem garab yi nga xam ne moom nga yittewoo noonu it la ñuy taxawoo ñi nga xam ne dañoo nekk ci kër docteur ci wàllum paj commission sociale bu Touba ci kanam yemul foofu ne événement yi nga xam ne moom moo di tabaski korite ak grand magal bu Touba noonee la ñuy taxawoo néew ji doole ji ci ay yére dàll ba ci koppar yoo xam ne daañu leen ko jox ngir yooyu le xew-xew ñu mën koo dundal ni ñu ko bëggee ci atum 2022 bi commission sociale bu Touba ci kanam di waajal sixième édition sociale Ramadan di bis boo xam ne dañ koy amal ci biir weeru koor gi ci jàppale néew ji doole ji nga xam ne dañoo nekk ci dëkk bii di Touba te am ay jafe-jafe ngir mën a taxaw seenug njaboot ci biir weeru koor gi ci ak dundu objectif commission Touba ca kanam moo di lu toll ci ñetti junni njaboot ñu jox leen ak dund ci journée sociale boobu nga xam ne moom la ñuy waajal nii lañ ko fas ne tëralee nag moo di mbooleem quartier yi nga xam ni dañoo nekk ci Touba tey ay sancaan commission sociale bu Touba ca kanam dana fa yabali ndaw ngir ñu amal recensement bind mbooleem ñi nga xam ne yeyoon nañ ndimbal googu ngir ñu jox leen ko ginnaaw biit dañu leen jébbal ay ticket ticket yoo xam ni buñ ñëwee ci bés bi ñuy amal journée sociale bi dañ koy jébbale rek ñu jox leen li nga xam ni moom lañ leen di dimbalee mu jëm ci ceeb suukar ak koppar yu ñu lay jébbal muy transport boo yóbbee dund gi nga xam ne moom lañ la jébbal journée sociale ramadan boobu commission sociale bu Touba ci kanam mi ngi ko jàpp le 16 avril 2022 ci résidence Xaadim Rasoul bi nekkee ci Touba Daarul Manaan social ramadan commission sociale bu Touba kanam di ci woo ñëpp képp koo xam ni bëgg na ciy jëf ngir jàppale ñi nga xam ne ñoo di néew ci doole ji mën nañoo jaarale seeni barkeelu ci numéro yi affiché am na Wave Orange Money ak compte bancaire ay ca leen murit nañu roy Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalif général de mourides ndax at mu jot kenn du ko jiitu ci jëf ci commission sociale bi ngir jàppale ñii di néew ji doole ji ay ca leen murit bu liggéey bi laal suuf benn yoon